wa fitnati almasihi dajjal nga ni yàlla maa ngi muslu ci fitnay dajjal mi ngi ñëw dajjal avant muy ñëw ay jigéen lay jiital àdduna bi tey jigéen ñi lu leen neex def libre nañu maa tey mooy yàlla yii mooy préparation yi ñëwu dajjal musique tëgg fecc jouer théâtre jouer film tey loolu la jigéenu juri ñuy njëkkante koo gis ci jigéen tey pare na pour dem nekk benn artiste suñu jigéen ñëpp léegi ay artistes lañ joué ay film théâtre rusatuñu góor ak jigéen ay sénégalaises di joué théâtre tëdd ci benn lal sangu te du ngeen jëkkër ak jabar pour ñoom loolu non non non loolu garaaw ah. la eh Oustaz Oumar dafa bëri coow rek mais loolu dara new <laughs> xoolal ma lu garaaw lii parce que tour nga bëgg borom maison production yi tey lu leen neex lañuy def lan moo tax jigéen ñi dootuñu am arrêt. dootuñu tiit dootuñu daw dootuñu raf parce que never mind amatul tiit dara parce que dajjaal moo leen yabal ci loolu la ñuy dund moo tax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax nii taawatu billahi min fitanin ma dahara minha wa ma batan na ngeen musul yàlla ci fitna yi la feeñ ak li nëbb gis nga fitnatu shubuhaat moo gën a garaaw yépp nag mooy fitna boo xam ni da lay lëndëmal ndax diine nga koy jàppee te du doon diine te boo nee du diine joteeg nit ñi te ñemewoo wax ni diine la ndax yàlla santaane wo day dem ba li araamoon ci turu diine la ñuy jaar di ko daganal mooy tëgg ak fecc ay ndaw di ko def dëkk ci kon yore ay gurt ay bédo rëgëj rëgëj di tëgg di di sikkar turu yàlla di tëgg léeg-léeg sëriñ bi génn gën a ñàkk jom ñëpp fecc ba xolam sedd dem boo nee du diina ñu dafa attaqué suñu ngëm-ngëm dafa attaqué suñu nàngam say loolu la ñuy dund mbokk tey ñi naan yàlla nee na yonente nee da il faut ñu am retenue am na looy tudd ñu ne lay xas tey ci baas tant tant bu ñu tant ne yonent bi lañ ko tàntal wala tant diine la fa la ay paa di fecc ay meer di fecc ay nitu diine di fecc mais tànn beer boole boo fa dee paa yi ku nekk sa puus naan loolu dafa xaram te dem nga fecc ci cant gi te da ngaa na ñoom ci lu xaram lañ nekk jàpp ne li nga nekk diine la sëriñ bi nag mooy nekk saay-saay bi gën a mag day ñëw fecc ci seen kanam wala leen di xool leen dara newu ci tëb yëngatu fecc ñaqal diw feccal diw kuy tëb ci diw kuy nàngam ci diw loolu la ñuy tuddee diine fitna booboo gën a grave bokk na ci fitna boo xam ni ndaw li day ànd ak ki muy àndal muy màndi ci kanamam moo tax ndaw li certifié màndi gis sëriñam ki ñu ne mooy wasiilaam ki mu ne moom la yaakaar ci àllaaxiraam kooku day màndi ba du xool takk veere mi ñuul ne zëmm ma gis ko di xale bu góor doon mandikat ñëw adhéré wu ci daayira mais effectivement loolu la ndaw ñi ba da nga léegi waaye ñun diw la ñu àndal waaye moom kay bu ànd ak moom nangam nangam ñii dem ba ci ku ànd ak ki ma àndalu la neex laaj ñii dem ba ci ku ma àndal firdaw si nga jëm mooy la xaraamoon commencé nañ koo daganal ci tuuru diine ba commencé dagal beneen bi mbokk yi bokk na ci fitna yi xaabaabal ci diine fitna yi xaabaabal ci diine waaye dem ba ñeme di jël lu ëpp ñeenti jabar ñeme di ko utal tur di ko utal lay xam ngeen ni fan yi yéen a ngi dégg benn dajjaal buy wax ni takk lu ëpp 18 femmes dagan na yàlla moo ne mas naa ñaar ñaar yàlla moo ne sulaasa ñett ñett yàlla moo ne rubaa ñent ñeent nga dimlu lim ko pare waxoo moom miy wax sax da xam ne kii jàngu dajjaal la iblis a nekk ci garam kenn ku nekk naan tontu leen ko dof doo ko tontu mooy kii ngay xool kii loo koy tontu ki nga xam ne boo ko nee xadis xamul boo ko nee aaya xamul dara newul ci boot bi iblis ëf na ko bakkanam mën na ko léegi nag musiba bi nag mu bëgg a daganal takk lu ëpp ñeenti jabar fan la ko alquran wax fàtte na jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo ñu jàngal ne takk lu ëpp ñeenti jabar dafa xaram ginnaaw bi ko yàlla ne laa yaxillu laka nisaaw min baat yonent moom yow am nga droit takk lu ëpp loolu ndax koo takk yaayu jullit ñi lay doon keneen dootu ko mën a takk yonent ku mu xës ba takk xaraam na ci islaam ñëpp ñu takk soxna yooyu moo tax kon wa azwaajuhu umma kuy takk yaayam yonent bi ay soxnaam suñuy yaayam moo tax bi mu amee loolu fukki jabar ak benn avant muy gaañu juróom-ñeent tiiñ ko yàlla def ko ni amatoo droit takk lu ëpp lii wala anta baddala bay na wala ngay fase di takkaat munoo ko yonent bi du dund alquran di wàcc mu ñu koy firil am kenn ci gaa yi ñëw bëgg dugg ci islaam indaale fukki jabar benn ceddo takk ci loxo yi ay lamak lu ne ñëw ni yonent bi dama bëgg dugg ci islaam yonent bi na ko ñaata soxna nga mu ne ko am naa diis kooku moo la gën a àgg am naa diis yonent bi na ko demal toog nga waxtaan ak ñoom nga tànn ci ñeent ñu ci def nga libéré leen waaw su takk lu ëpp ñeent danganoon yoon danganoon yonent bi na ko def yonent bi ne ko demal tànnal ci ñoom ñu la yéem waa ji ñëw waxtaan ak ñoom tànn kaat ñi ci def mu libéré leen ñeneen takk leen nga gis léegi tiktok bu ko nga naan tontu leen diw wuyu leen diw non subhanallah léegi nag lépp li gën a grave nag mooy léegi moom dafa ñëw accuser suñu kilifa yi mais kenn ñemewul wax moo lay wan ne lu xaram <laughs> euh, dëkk bu amul frontière la de oto bu ñëw dugg moto bu ñëw dugg lu ñëw dugg dëkk bu nekk lu xaram moom moo wax ñëpp di dégg da ngeen ne takk loo ñeenti jabare sëriñ diw sëriñ diw tudd ponkal yëpp gaa yi ne miig kama qaala azza wa